aleykum wa ñu ngi siyaare waat waat bu baax di leen ñaanal jàmm xanaa ñu barkeel waat tuuti rek incha allah nettali bi ci nettali sëriñ Mor Alima Gueye la bokk nee na sëriñ bi mas naa tomb tomb yu bari ci wet gi tomb benn tomb ca wet ga ca des tomb ay tomb yu ko wër ni mboolem mbindeef yëpp ñu ngi nii te moy tomb yu bari yi daal di wax ni fii man maa fi nekk te mooy bon benn tomb bi del wax ni xuyóoru dunia wal te mooy yiwi àdduna ak alaxira ñooy tomb yi ma wër daal di wax ni képp koo xam ni sa boroom namm na ci yow nga jariñu dalay xiirtal nga bàyyi koo fee fekk si ma fii waaw nee na képp koo xam ni sa boroom namm nga na nga jariñu dalay xiirtal nga bàyyi koo fee fekk si ma fii daan na wax ni it sëriñ bi daana wax ni daana wax ni jaamu yàlla yëpp maanaam jaamu yi yëpp daje nañ fa sun borom jëbbalu gën cee noppale naa seet lu baax baax nee na jaamu yëpp daja nañ fa sun borom jëbbalu gën cee noppale mu la koy leeral nag ne la mi ngi mel ni ku yor satal ndox ñëw ba ci koo xam ni daa yor géej ak teen ak dex nga jox ko ko mu sotti ko ca ni la ndox saam ndoxa daa di ki nangu wut a jébbalu mooy ku yaru ki nga xam ne dafa yor mooy ki yoruk satala satal ndox attanu ko joxe te bëgg a sangu bëgg a fóot bëgg raxas hmm. ba tey ci jaglay sëriñ bi nettali bi ñu naan sëriñ Ablaye Mbaye moo ko nettali nee na am na bis ci njaareem am séeréer bu màndi dox ba ca penc ma mu daanu faatu sëriñ Balla Faali Jëng radiyallahu taala anhu ni bala cee kenn def dara nañu ko yëgal borom penc mi ba ñu ko waxee sëriñ bi ak ni mu demee ak seenu jaaxle ci moom sëriñ bi ni néeg leen ma foofu daal di indi fukki mètre percal ak liitarub libin ak liitarub sikki ni leen bu ngeen demee na ngeen ko def ni ngeen di def kenn ci yéen bu fi jóge woon na ko taxawu te bu ko gone laal bu ngeen demee na ngeen ko sang ba mu set ngeen tuur ko sama gëtt gi sang ko sama càngaay lii yóbbu ko fa jàkka jooji jullee ko yóbbu ko ci armeel ya mu dekki dekke àjjana gàcc <laughs> nee na sëriñ Balla Faali ni cuuy am na xeeti waxil na waaw man de waaru na sëriñ bi ne ko Mor Balla loola mu ne ko ndekete àjjana gàcc am na sëriñ bi ne ko waawaaw ndax yéene wu ko ñaanu ko jëfu ko xamut lu ko ca yóbbu dana dem te du xam lu ko ci yóbbu dem leen defar ko ba ñu del see fekkaat sëriñ ba fa mu toogoon jugu fa mu ne leen suul ngeen ko ñu ne ko waaw sëriñ bi na xanaa kenn ñaanalu ko ñu ne ko ah kay ngir ña yaa waxoon def leen ko ni ngeen di def seen bopp moo tax ñu ñaanal ko sëriñ bi na matu ko woon matuma caa dimbale nda mën naa ko waaye ko kii li ko may àjjana penc mi ci boppam am na téeméeri at ba muy téeméeri yoon loolu yi muy war a toll ci limu ay at nee na am ci kenn ci fare ko yemoon naa fukki junniy at sëriñ bi joxoñ ko baaraamam bu tedd ba ni ko yow moom mii ko xam daal di wax ni téeméeri at téeméeri yoon yoo xam ni kenn jaamuwu fi yàlla sa borom yàlla yebal ab jaamam mu di ko fi jaamu di ko fi jaamu mu daldi di wax ni pàkk yi ci àdduna yépp bu ñu doonoon ay mbër di bakku dana tëb ci seen biir te benn pakk te benn pàkk du ko dëkk daa wax ne Tuuba maa ko tànnal sama boppu fii sama boroom moo ma ko tànnal tànnee fukk sunu boroom nag tànnee sunu boroom yemut ak dara penc mi moo texe moo waral ku fi faatoo texe képp ku faatoo ci dëkk bii ñu teg ko ci buntu jàkk jii jullee ko yóbbu ko ci armeel yi malayka yi duñu ko laaj dara maadiw layam anlu jagle gu maga ngi noonu képp ku faatoo ci dëkk bi booba njaarim la woon ñu teg ko ci buntu jàkka ji jullee ko yóbbu ko ci armeel yi malayka du ko laaj dara maadiw layam ba ba tey ci nettali Serigne Saliou Lo moom Serigne Mor Xabsa Lo ci njaareem ba tey nee na Serigne bi mas na leen a wax ñett bant ya mu garoon ca Gabon gàddu ñaar ña womat benn ba dikk defar ko jublu ci jàkk nee bi mu koy defar kilifa googe mi ngi koy seen bi mu noppee daw ñëw ni ma fii jàkk xew fi. wax keneen ni ko fabal bant yooye wàcc ko ne ba mu ko defee daa dem fa muy tuure ndox sànni ko fa nee na sëriñ bi nee na naqar wa ma ca am tax na mu doon bëgg a waral mbir waaye rasulullahi sallallahu taala alayhi wa alihi sama xarit ba ni ma bàyyi ko danaa la ko faye fu jige te duñ ko mën a saafara moo tax mu ne nee na bant yooyee mu goroon mooy pirim ñaari sorol yi saaxali xeyrillahu fii ma yomba ma saa a wa aadal janba nee na mooy pirim ñaari sorol yi moo tax nee bi daan wax du jàkka du juma ak pay la nee na sëriñ bi daan na wax ni it ci jumaa njaareem bu doon am aw tur najaatu ahli lardi day najaatu ahli day tudd wa misbaaxu ahli samaa'i mu ne noonu lay tudd nee na bu doon amaw tur daan na wax ni du jàkka du juma bu doon amaw tur bu doon amaw tur najaatu ahli ardi wa misbaaxu ahli samaa'i mujjug ñooñ suuf tey lampu ñooñ asamaan ba tey mayam yooyi jumay njarim njaarim daa bokk ci ay mayam moo tax sëriñ Saaliw Lo daan na nettali ni keroog bi mu noppee sëriñ bi daa wax yàlla ni ko waxal kookee la waxoon ni la fii xewu fi yelli yelli ma ko doon xulool yàlla na ko yàlla yërëm te yokk ay leeram saan waxal kala waxoon ne la fi jàkk xewu fi demal nga ne ko na ñëw dindi kii fi nekk tey yelli ni ko kii kenn mënu ci dara sëriñ bi ne ko yàq nañ fi mbaarum gattax toj fi tabax nañu dindi kii fi nekk tey xanaa mooy li sëriñ di ko sallallahu alayhi wa sallam sangam ba waxoon ni ko danaa la ko fayee fu leen jige te duñu ko mën a saafara assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu